wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri man abaat mbokki Touba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu commission santé bu Touba ca kanam mooy amal journée de consultation médical gratuite ci ñetti poste de santé Touba ca kanam bi nekk waa Kër Gol ak Boborel Daaru Xadim le dimanche 19 septembre 2021 bu 9h ci suba jotee ba 16h war ci ànd ak district sanitaire bu Touba ak waa Touba assistance médicale Touba ca kanam mi ngi woo askan wi ngir ñu ñëw ñu xoolal leen seen wérgu yaram te duñ ci fay dara ba noppi ñu may leen ay garab yu leen di faj te it duñ ca fay dara kon Touba ca kanam mi ngi liggéeyal ñi nga xam ni kat ñoom ñoo di waa dëkk ba yëpp Touba ca kanam moo leen di woo ci consultation gratuite yooyu nga ñu seetal la sa yaram te doo fay dara jërëjëf Touba ca kanam jërëjëf wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat